Monaco mi mayul dara équipe bile di Barcelone est-ce que nappaajiwu ko jaar ci kawam jàll loolee bu fekkente ni neexul catalan yi maa ngi ciy jégalu waaye loolu laa gis ni yaakaar naa ni danoo jaar ci seen kaw jàll. ci équipe boo xam ne yaakaar naa ni ab coupe la premier match Barcelone balaa muy football. lii di championnat bi commencement bi ni mu dikkee yaakaar naa ne fi mu toll nii dara baaxu ci gars yi maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam supporters yi merengue yi képp koo xam ne foo man di nekk di suivre football ngi lay fekk fa nga ne di la jàpp loxo bëggee la kontaan ci yow ñaanal la jàmm ak salaam yàlla defal uh, sutura ñëpp gam màggalu bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal nag yàlla def ñëpp nag am lu ñu def ci seen ña nekk Touba di teral nit ñi yàlla defal leen ay xéewal ñu gën a mën a teral uh, gars ñi maa ngi jégg lu guddal naa waaye ma dem ci information yi Lamine ak Camara notre cher international sama waa ji seen waa ji léegi nag ci match bi nga xam ne Barcelone daf ko doon football xam ngeen ni footballkat la bu yes peq bu nekk fële ca AS Monaco dem fekk fa ay international ko ci mel ni ñoom kii di euh, Krépin Diatta ak euh, Ismaïla Jakobs yooyu ñoom nag danoo am ndam Ah, ci diggante ñoom Barcelone ndam loo xam ne nag wax dëgg yàlla man na maa jàpp ni ndam lu yaatoo yaatu la tayit loolee lu gën ay Barcelone yi ànd ak Flick Hansi war a mën a xoolaat ci jongante yi nga xam ni war nañ koo mën a dëgmal ndax match bi match pièce la woon Lamine Camara nag dañuy taxaw ci moom ndax nag wax dëgg yàlla bu affaire yi ak chef am na ci taxawaay boo xam ni am na ko ndax moom moo njëkk a taal kër gi bi ñu footballee lu toll ci juróom fukki minutes loole nag may fit gën ay Monaco yi ñu jàpp ne war nañoo gagné équipe bu mag bi nga xam ni Barcelone la loolee tamit ñoom moom lañ gëm topp action ba keroog lépp nag di doon tawféex ci li nga xam ne mooy boo match ñu gagné match ba nag gagné bu leer nañ waaye ñu gis Barcelone gone yi nege nege gi nga xam ne nege nege noonu ko ndax Barcelone gu dajeeg Monaco amul benn yoon bu mu dugalee benn bit ci match boobee loolee wax dëgg yàlla man de maa ngi koy ñaawlu te jàpp naa ne des na liggéey bu gone Barcelone yi war a préparé liggéeyaat ko bu baax a baax balaa championnat bi commencé fii ak euh, ay fan yu néew nga xam ne li des championnat bi bu commencé may ñeenti fan lay doon ak yooyu fekk na booba nag Lamine Yamal gis nañ ko moom taxawaayam am na ko waaye des na lu bëree bëri ci li nga xam ne mooy jogante bi nag Lamine day door reprendre kenn mën ko approché dara waaye xam naa ni bu fekkente ni ticciku na ci yeneen match yi nga xam ne Barcelone dina ko am da gis lu garaaw a garaaw ci boobee kenn du ko teg benn prédiction waaye li leer ba leer mooy bi na teel a jëlaat ci matuwaayam accéléré dossier en euh, ki nga xam ni mooy Nico Williams si dossier boobee mën naa am ay njeexital ci li nga xam ne mooy mbir bi donte tàmm na euh, tabb na numéro 10 waaye loolu lépp nee naa leen ay teg-teg la yu am ci suuf rek mbir mi moom mën naa am mu sotti ci côté Barcelone yi ndax ñëpp leen yéene ndax équipe la boo xam ni comme moom ni ko Williams bëgg na ko ba d'accord ne war na faa dem ab équipe am nag waru koo mën a xañ mbégte moom nga xam ne man a xaalis la Barcelone lànk ba tëdd ci ñag bi kii jërul cent francs pour l'instant bu mënee ñëw gratuitement ci Barcelone na ko def bu mënta ñëw ñëw Barcelone xool nu mu téye ay ñoom Ansu Fati gars yi xool teg-teg de jeu boo xam ne dana ko sa ngir mën a affaire yi jaar ci yoon waaye anduma ci yow moom muy génne ab xaalis di ko def ci ki nga xam ni moo nekk kiis de commande bu France leble sax xam naa ne bu fekkente ne fayar ga mën naa yomb ba doon taw féex loolee gars yi mën nañ koo essayé waaye Barcelone gu taxaw démb war a mën a régler ay situation loolu jàpp naa ni war naa mën a nekk fekk na booba tamit ma xalaat ni Ansu Fati mii ñu leen gis ci image yi nga xam ne maa ngi koy proposé ba tey mi ngi wëndeelu amagul euh, bi gars yi ubbiloon ko ko waaye ba léegi nag dara feeñu ci moom Ansu Fati est que que ci commentaire yi laaj leen di samp question yi euh, bi mën naa tegu ci teggin te it ànd ak ay yu am am solo ndax Ansu Fati ba tey ba tey Barcelone waru mën a téye ceene ko ñuy gundaandaat di doxal lu am am solo ndax gis naa ni war naa mën a nekk quoi te lu war a mën a nekk rek war naa mën a nekk quoi parce que jàpp naa wax dëgg yàlla jërul yóbbu fenn nañu ko bàyyi mu nekk ay relais ci li nga xam ne mooy attaquant yi ku doxul ñu génn sa morom daal di dugal loolu équipe bu mat sëkk bi ma jàpp ni Barcelone war na koo mën a téye fu ci ne a suivre abonnement yi ko coppati ko ndànk di bàyyi xel ndax xam naa ne fi mu toll ñu ngi waajal lu doy waar bàyyi leen ko xel bàyyi xel télévision bii di Aladji TV information yi fii ngeen ko mën a taataane di ko fi amee gërëmaat naa leen sant leen gërëm gu am ab commencement waaye amutub àpp ndax da ngeen a baax tey da ngeen a am solo ci li nga xam ni mooy bii la télévision jërë ngeen jëf